joxente dellu siwaat ñañu jàkkaar lool tontu wuñ ko ca discours yoo yële ci ay yow lii nga fii nga bokk ñu indi fii problème boo xam te ne mosul am ci senegal ñëpp tey ndaw yi jàpp ne c'est une chance pour le Sénégal ñu koy dem di ko mengaleek ñoom Mamadou Dia ñoom Cheikh Anta ndax tey jii mën nañu xaar li nga xamante ne fa xeex ba àgg ca ñoom ñu faagaagal ko comme nañu faagaagale woon ñeneen moom ci boppam ma ngay artu Euh, man damay wax d'abord ni Ousmane Sonko bi ma waxtaanee ci wal fajri booba ñëpp dañu ni moo tax may wax te yàlla xam na ni ba fii may waxanteeg yow mosuñu gisee maak moom xam naa ko nag te bis bu yàlla dogalee ñu war a gisee daañu gisee man làqatuwuma mhm. déedéet sénégalais la jàpp naa ni mi ngi ci droit am na nag lu ñu ko jiiñ dëgg la wala du dëgg kooku sama du sama domaine. Mhm. domaine nu justice la. mais foofu maa ngi wax ministre de la justice mu fee def très attention ñu ngi wax ni réew mi justice bi dañ leen di dal nangam nangam bañ a dal. Koundé bi Mbaye sa maam. doo daw. Mhm. nañ ñu wax kaay yi fi jaar yëpp ba xam fan la mujjee moo gën ñu nekk fii di xasteeg di tëkkoonteeg di saaga nit ñeeg di wax yenn yi ñun faluñu leen pour loolu. bu ñu bëggee ñu gëm leen dossier yi fi jaar yépp mais président taxaw na fi benn 31 décembre discours am mu ne am na ci dossier yoo xam ne maa ci teg sama loxo. Mhm. parce que damay bañ réew mi tàkk bañ réew mi tàkk ba doo duñu wax li xew lan la. mais pourtant bu ñu ci continuer ci noonu réew mi dina tàkk suñu deful ndànk kenn ñaanu ko yàlla nag waxuma benn langage pour naan waaye kii dafa li muy wax nag dafa ëpp. su yeboo réew mi la ñu am ñun amuñu fu dul Sénégal. mais il faut ñu waxante dëgg problème Ousmane Sonko def naag deful kan moo ci war a dox. yoon yoon am na. Mhm. foofu laa jàpp loolu laa jàpp. Mhm. waaye ni ñu ko defee nag ñaaw na sama xalaatu bopp laay wax. Mhm. xamuloo ni ñoom ñoo may bës Ousmane Sonko. Sénégalais xam nga lu mu bañ. néewal nit doole. boo ko defee rek gis seen jikko. Ousmane Sonko lii mu def yëpp ba yegg fii. ñoom ñoo ko may bës beneen bi ci des xaste bi ñuy xaste di dal ci kawam di ko xas suba ngoon guddeeg bëccëg yooyu du yëfu état man je me demande est-ce que vraiment jaratul léegi ñu def des des des écoles pour les partis parti socialiste. amoon na amoon na fi école. nga xam ni da nga daan gis ay nit ñoo xamante ni bii wóor na la ni ñii c'est ay homme d'état la ñu. Mm. mais ku jóge ca làng ga rek. ñu falle la député à l' assemblée nationale nga nekk ci biir assemblée di saagaanteeg di xastanteeg mel na ku nekk ca jabar di tàcconte il faut que ça cesse donc Ousmane Sonko lii moom bu fekkente ni bi ay pexe la ma xam ne ñi ils n'ont rien compris te li li weesu ñoom ba ñu jot ci nguur gi tey jii fàtte nañ ko président dégg naa mu wax fii ci benn waxtaan ni lay wàdd na xam ni. lii bu ci jéemee insister dañ koy fekki biir pale déloger ko moo ko waxoon man maa ngi enregistrement yi ànduma ak Sonko ànduma ak euh, mhm. Macky Sall mais je dis la vérité la mu waxoon ni Moussa ak Firawna mhm. président nettali na ko ci benn waxtaan mhm. Walfajiri la woon Walfajiri la woon mu wax ni Firawna ku ko ni woon Moussa ci pale bi lay juddoo te fa lañ koy yaree mu weddi ko booba mu ngi doon joxe exemple ci moom ak Ablaye Wade su ma doon moom gis nga affaire Sonko bii na wax gaayam yi lu baree bare ñoo ko ko yàqal mais tey dafa yokk xar mi karaw naam bu fekkoon ne ci wàllu mërs la ko doon jublu askan wi ñoom def nañu une idée ci affaire boobu mais dafa am leneen loo xam te ne mi ngi ci dolleeku ay banqaas yoo xamante ne tey ñooy sooklu démocratie lu ci mel ni yoon bi ñu ngi koy wax lu ci mel ni ëttu takk der yi itam ñu dugal leen ci ndax suñ demee bay yëkk yëkkate ay wàllu rébellion terrorisme ci dëkk bu mel ni Sénégal également y a de quoi mais tey ji euh, sëñ bi yooyu yëpp amul qui veut tuer son chat. l'accuse de rage. loolu rek la pour man sama analyse bopp. Mhm. nañ ñu wax rébellion yi kan la ak ñan ak ñan la nañ leen génneel wan ñu. gis nga réew mi moo toll foo xam ni ñoom ba léegi dañu xamul ni Sénégal bi woon 2012 changé na il faut ñu am conscience ci loolu politiciens yi ñu xam ni léegi dootu xale yi dootuñu leen may dara lu toll ne tarfatalaay ni parce que ñëpp a yeewu da daan xool bu njëkk. bu ñu daan dugg ci élection wala campagne électoral mhm. li ñu daan génne ci xaalis yëpp génne nañu lu toll noonu ci yi passé mhm. année résultat yi lu mu doxe lu mu joxe xale yi boo leen joxee xaalis jënd leen t-shirt jox leen saaku ceeb wala nga invité leen wala leen yi ñu dugg ci amul problème mhm. boo demee ñu tàccu la tëggal la nga yaakaar ni yaa ci nekk bu urne ya jotee ba ñu dem ku nekk am na koy sànni yooyu dafa xew yi c'est li jot mooy ñu toog waxtaan affaire dossier bii ñu jëm koo teg ci suuf ak yeneen yu mel noonu man loolu laa jàpp ni mooy indi jàmm ci réew mi Sonko bu fekkee ni dafa am ak yoon justice nañu bàyyi justice def liggéeyam mais bu fekkee ni nag lu ñu fomante la ngir rek bañ gis nga bu yàlla ne day doon président forcément da koy doon te gis nga nag kaay ma wax la booy gasal sa noon pax bu mu xóot ëllëgay tax lii ñuy wax ci affaire terrorisme